jërëjëf Abdoulaye Diop euh, jërë ngeen jëf auditeurs yi nga xam ne yéen ay déglu RFM 94 point 0 jaa ngeen jëf ñu ngi leen di béggee bu baax a baax encore une fois yéen a ngi seen journal des divers xalaas ak moom Mohamed Ndiaye ak Mamadou Ndoye Bane Ndiaye maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax. di la mastaw ak di la. waaw waaw muy. Euh, caale sa waa ji. muy mbir bu doy waar. Mhm, mhm. waaye nag euh, comme lu ñuy wax rek. fa mu fa mu jëm yàlla ko yàlla na ko yàlla ko gënal fi mu jóge Aliou Diassé amiin eh, ku nangu woon liggéey mm-hmm. Mm-hmm. te mokkal ko eh, njaboot gu sew gi mu fi bàyyi mm-hmm. yàlla ci yàlla teg loxo. amiin amiin koy jaale bu baax également Boubacar Diallo. Boubacar waaw waaw waaw moom ko jege woon la. moom bu mujj bi sax moom la ko tuddee. dèjà moo nekkoon deuxième bi voilà donc. Euh, doy na war daal doy na war daal. nañ ko jaale suñ bopp ñun ñëpp. Mhm. nañ ko jaale suñ bopp ñun na solo am man nag Ndiaye temps nag yàlla mi ngi jël ay sama ay xarit yoo xam ne vraiment neexuma man. maa ngi koy wax léegi léegi nii maa ngi koy wax léegi ci salle d'attente bi wallaahi maa ngi koy wax léegi salle d'attente bi. te ren jël na sama benn xarit bu nekkoon mairie bu Dakar Muniru ba léegi nii sama xel mi da ciy ne. ndeysaan. bërgi mu jëlal ma njallu ah, njallu waaw jëlal na ma ku ñuy wax baara Baara moo nekkoon jëkkëru benn euh, soxna soo xam ne ñu ngi tudd Marème Kébé. soo doomu ñu jóge Kébé Baara moomu nit ku baax koo xam ne sawaay man bi ne ma wàcc ne liggéey bërki démb man tuuti tuuti tuuti ma dem toppaale ca. ba yeewu tey ji yeewu jaasi mi nga xam ni. xale bu disponible woon nangoo liggéeyam pare mën liggéeyam loolu moo ci gën a neex nag mën liggéeyam mhm. waaw ñu koy ñaan nag yàlla ko yàlla xaare àjjana ci ñun ñu wax yàlla mu dem ci beneen dëkk te bañ ba ci kanam te te fajal ñu ko ne boo woon dijee buus boo ko woon ni ko buus dama bëgg faa danaa la wol jaase wol jaase wol jaase ma ne tamit maa ngi koy jaal sama waa kër yi sama yaay ndey mbay bàcc ah di ko jaal ay doomam ak waa këram yëpp yaay ndey bàcc moom tamit yàlla yàlla yërëm ko mhm. xaare ko ajjana sama maam yaay ñu ngi bokk moom tamit sama maam ma nga ca Mali loolu tamit lenn gën koo métti ah. sa yaay ji la jur euh, faatoo ca mal Mali nga nekk fii te mënoo faa dem yaay rugi bokkum ñu ngi koy masaw bu baax ñoom maam bokkum ñoom Jeynaaw ñoom aw bokkum ñëpp leen koy jaar bu baax a baax a baax en tout cas daal yàlla na dem feneen te may ñu ñun noppalu ko tuuti corona gi. waaw ah, waaw ah, ah. ne ko doy na war te ñi faatu ñëpp corona gi yóbbuwul leen. déedéet corona gi yóbbu ñi di faatu nit dañ doon faatu. feebar corona. Mm-hmm, mm-hmm. bi ñëw nit ñi faatu. wallaahi wallaahi bu demee yàlla bu soxlaa bakkan da koy jël ni muy indee. Mm-hmm. nga woo ku ne ne ko damay tudd soxna si mucc na. dëgg la de noonu lay yóbboo de. noonu lay yóbboo rek dag kenn nga woo ku ne ne ko. laay moo sañ. doy na waar moom daal yëf yi baan yow tey damaa foogoon sax doo xëy si tey maa ngi woon carte waaw. Ah, waaw waaw ah. yow moom dafa mel TFM moo la gën a yitte. man nag TFM moo ma recruté de. TFM hmm. moo ma jël dugal ma groupe Futurs Médias man fem laa bokk de. dégg may génn ci rajo bi nii rek mais man TFM laa bokk. yow kon tey bu ñu ñëwoon teg RFM teg TFM yow ban ngay jël. noonoo non man aw ma bu moo ciy jël man man man man man fépp laay. doxal non non bu ñu tegoon benn ne benn nga war a jël yow fi ñu toon nii ban ngay jël. mënoo cee ban jël bi bàyyi bee. man nag man nitu rajo laa nag man. Mm, ok ok. man man fu mu nekkoon. man man. fu mu nekkoon démb. man quartier général laa nekkoon waaw. Ah, kon émission bi mi IG. toj réew mi nga xam ko ci woogul wala mu ñu neexul da nga cee. xanaa xaw ki ne ceeñ ci xam ne télé yëpp a ngi koy toppandoo. comme ba comme ba mu tàmbalee ba léegi maa ngi koy saraxu pour dem ca Pape Cheikh bañ. Ah. télé yëpp ak ñuy toppatoo nag <laughs> mu tàmbalee ba léegi chaque jour ma woo ko bàyyi dimbali ma ñëw ba ñu ma ñëw ñëw quartier général dama koo ñaan a ñaan ba son Pape bañ moom moo bañ na ko Sénégal xam télé yëpp Pape a bëggul ma dem quartier général donc li may mu génn waaye télé yëpp a ngi quartier général plateau bi ñu doxal aji ay quartier général des des petits quartiers général dans les autres télévisions euh, kii kan la mu ne lan la moom la la def Ndiaye ban yaa histoire bu doy waar laa la indil. indeeti kay ngay waaw waaw la indeeti wala waaw bii nii Njaay bii benn famille la. kii nii mooy taawu baayam bi ngi tudd Bayla Diallo. mooy mm-hmm. fàttali nag frère am yi wax dëgg yàlla jox nañ ma seen numéro yi woo naa leen contacter leen yónnee leen li nga xam ne interview bi mais réagiruñu xam naa su lii jàllee nag ci après ci lay sonal di bëgg a réagir mais bunt yi tëjuwul mais kii dafa nekkoon bitim réew nekk mag di jàppale ay rakam. ak ay doomu baayam def depuis 76 la commencé tukki. Hmm? ñu dem ba mu amus tuut papaam génn àdduna ñuy jaay kër gi moom mu jënd kër gi jukki leen ñoom ñëpp ñu dem ba jëmmi jamono mu ñëw fi dafa xëy sub rek gendarmerie nit taral këram ñu ne ko coppet yóbbu rëbës. dañ koy tuumal déglu. man dama jóge fii. ci 1976 France. nekk fa ñeenti at bi defee ma dem delluwaat foofu ci gannaaw bi ñu ma wulbatee ma delluwaat def fa ñeenti weer yàlla ma ubbil ma bunt ma dem almaañ lool loolu yëpp maa ngi ci sama kër baay <clears throat> di di soutien famille parce que ñi nga xam ne tey ñoom laa joteel boobu ñu ngi jàng te boobu maag sama ñoo fi nekkoon liggéey am ñi di ko indi ci kër gi di leen ko dundale ndooy soo gëstoo lii ci biir cité Icotaf un googu danañ la ci wax lu ma la dul wax fii ma takk fa jabaru tubaab parce que bi may dem almaañ benn peru dàll laa fa yóbbu ak benn bus ba ñu samp fa société de nettoiement ku dut sama baay ci ñi ma bokkal ndey ñëw nañ ci man majeure partie bi ci sama doole ba ci sama ndey man sama baay rek moo ñëwut di jënd frigo di ko indi Sénégal ci jamono boobu mën naa wax ne ci ñi gën a mag ci ñuy jaay frigo fii ci dakaar ci la bokk ñu jox ko sama rakk ji moom moo ma yoroloon sama lu ne nag su ma génti sax moom laa koy wax kooko dem naa ak moom ba ne ko mm, su fekkee maa ngi maa ngi baa ngi bitim réew Allemagne laa nekk de mais su ma dee bala ñu ma kenn laal na nga ñëw sama baay génn àdduna ñu ne dañuy jaay kër gi deux semaines après fekk fi góor bu baax ñu natt kër gi xayma ko ci neuf millions ma ne leen génnee leen ma benn million may ko seen mag ma fay leen huit millions yi te ñëpp toog ci kër gi bu kenn génn ba ñu demee ñoom ba minuit gisewaat ne loola doyut ca kër ga ñu ne dañ koy jaayee onze millions ndeysaan euh, suñu góor gu baax googu dafa leen a delloo kayit ga ca suba ne leen yéen doo leen nit ñu baax parce que da wax ak seen mag ba ngeen tëral ñépp d'accord ñu tas wax ja ngeen xaar ba tey ngeen di ñëwaat di mu wax ne ma dangeen ngeen koy yokk seet leen seeni keneen ku leen mirasal waa koñ bi jàpp ci ba mu nanguwaat miras mi daf ne ma bul jënd jox ma 3 millions ma jëndal sa yaay kër baan man lu ma lu ma lor mooy loolu noonu ngir mënoon nañ ko ci jamono boobu ngir kër gi sës ak ñun rek trois millions lañ ko jaay ci site Icodaf1 boobu sama yaay moo ne dee rek du génn ci kër gi moom fii la nekkoon ak ndeyam ak ak ak jabar ak jëkkëram ba génn àdduna ndoy baan loolu mooy li nga xam ne mooy sama sama jafe yëpp mën naa xam ne foofu la ñëwee nit ki am lu dul ndeyam ndoy baan nit ki amut lu lu neex sama rakki papa moo ma woo téléphone ne ma xale yi nee nañu deux mois lañ la may soo ko mënulee nga wax parce que dañoo soxla seen xaalis ma dem banque wakkir wakkir ci yàlla rek dem banque ngir ndooy baan ñii deux mois lañ mañ mayoon de ci wax jooja mais quinze jours xaalis baa ngi fii ñu fay képp koo xam ne sama doomu baay la sama doomu ndey yi ba ci kenn ñépp bindal ma kayit ne may na la ci jamono boobu te wallahi wallahi wallahi alazim su fekkee ne loolu amut su ma tegee téléphone bi yàlla nañ ma tàgge léegi ma ñëw fi benn vacance gàmm laa fi ñëw dama xëy rek ñu invité euh, añ ma dellu siwaat ñëw gendarme fekk ma fii bay laa jàllo ma ne woy mu ne ma kaay wuyu dañu ne ma yow da ngaa falsifié sa kër baay gi foo usage de foo faux yi loolu lañu la indi fii ma ne ko kooku kumu ñu ne ma sarak voilà quinze minutes ñu yóbbu ma rëbës mu ngi mel ni dañ ma dañ ma rey suul ma miraas ma gannaaw buñ ma tëjee ba gis ne loolu mënuta mënuta dem ñu ba ma dañu nangu sama passeport téye ma fii deux ans mais ban kii daaneelagul de waaye. njaay kii li mu wax lépp mën nañ cee xalaat une semaine fa mu jëm. waaw une semaine mën nañ ko cee xalaat. ñu dégluwaat ko mën naa wax ne ci ñi gën a mag ci ñuy jaay frigo fii ci Dakar ci la bokk. ñu jox ko sama rakk ji bi ñuy wax Cheikh Tidiane Diallo moom moo ma yoroloon sama lu ne nag su ma génte sax moom laa koy wax. kooku dem naa ak moom ba ne ko mm, su fekkee maa ngi maa ngi maa ngi bitim réew Allemagne laa nekk de mais su ma dee bala ñu ma kenn laal. doogoon nañu ko booba. jënd naa kër gi. dañoo jaay ñoom. man ma jënd. ñii quatre pour cent yi ma fay leen ñooy doomu bàyyi. dix pour cent yi samay mbokk lañu. ñoom ku ci nekk dafa bind kayit jox ma ne ma may naa la. kër gi dañ koo indi teg ko. pour def ko coow. pour affaire alal jëli mais du kër gi. mais affaire ci mënuñu ma mënuñu ma daane ci fële fii lañu ma mën a daane ndax euh, xëcc nañ ci sama doomu benn doomu baay nga xam ne ñaar fukki junni yi ma njëkk a investir ci Sénégal moom laa ko jox mu defar poulailler booba poulailler ngi door a xew ñu def ko benn ruq bu ndaw ci sama kër baay jox ko xale bi ñoom ñu lekk ko ma xam ne kii motagut ci liggéey ñu tëj loola kooku dañ ko dañ ko dañ koo dañ koo dañ koo dugal pour mu charge chargé dossier bi ci ne man fayuma ko te ki nga xam ne moo ko def loolu moom la def bàyyi mag magam la mais moom la def bàyyi moom la yaakaar ne eh, lépp lu teg woon ci moom ci teraanga moom moo ko ko jox te fekk nag kooka eh, daal yi ma sol sax moo man man moom pour bañ a lu lu lu lu rafetut mbuur la nekk frigo moo ko fa yóbbu te frigo yi maa ko indi fii Sénégal te mbuur la dëkk ba ñu xam ko fa te ci sama ñàkk ju mu xamut nu mu demee moo ko yóbbu mbuur jële ko Pikine yóbbu ko mbuur ba mu dëkk fa ba ñëpp xam ko fa man a leeral yal na yàlla leeral man soxlawu ma ci leneen de mais dañu ma tuumaal tëj ma yàq sama tuumaal lañ ma defal maa ngi ñaan ci yàlla ak yonentam yan yàlla dimbali ba tuuma boobu ñëpp xam ne du loolu ki jënd moom moom fay leen onze millions ñu fay sur la base de onze millions laa jëndee kër gi ba ma dem di ko di ko di ko changé ji néegu ndey bu nekk sa dooma nga fa taxaw ñu defar ñu kayit kayit yaa ngeeg man ñu ne yooyu ay kayit la yu ñu faux usage de faux parce que ba ñu paree ca la dañ ne ca euh, euh, euh, niñ ko waxati jugement boobu amut te te am na ñett ñett wala ñeent ñoo xam ne man ak ñoom ñoo toog ñoo taxaw ci kanamu juge bi ñu ñu déclarel ma ne man maa moom kër gi juge bi accordé ma loolu ñu ngi dund ay doomu baay la ñu ngi fi ku ci nekk soo soo soxla euh, euh, euh, numéro téléphone mën naa leen jox am naa fii ay kayit yoo xam ne sax ay décharge yoo xam ne dañ ma ko defal ci sama yoon bii rek ci wane na ñoom fay nañ leen seen xaalis lu ñu miraas ba fay ko ñoom mayum man mayuma leen kon kay paar rek lañu man a am mais duñ ma ci tëj yàqal ma man yàqal sama njaboot te kooku ëpp ma dooleel rek la du dara ñàkk ñàkk fee am mbokk parce que ñoom ñoo sama mbokk ñoo fi ñoo fi ne ñoo fa ñoom laa xam ñoo fi xam man xaw ma fi dara 76 ba tey jii sama génnee pikin kenn xamatu ko si cité Icotaf boobu jàkk yi nekk ci tali bi foo ne ana kër Amadou Lamine jàll ñu ne mu ngi nii xaj na nag tey ñu tuddee ko kër Cheikh jàlloo ndax moo fa dëkk ganaaw bi sama baay génne àdduna ba day fay luwaay fay dara te kër gi benn fiftinam dugg ci xam naa ne dëgg dëgg jafe na senegal xalaas. Hmm? lii ñamali la ñamali <laughs> lii ñamali la ci histoire bi xam naa ne en naa ñuy xaar beneen parti bi réagir. parce que semaine passée la woon jéemoon naa contacter ñi nga xam ne ñoo ñooy frères yi kooku muy xam mooy jaay frigo Mbour ak keneen ki nga xam ne moom la ci tudd. Mhm. yónnee naa leen éléments yi di xaar seen kii mais réagiruñu. gis naa ni sori man lu bëgg satisfaire sama curiosité. waaw ba mu génnee yàgg na. waaw waaw génn na waaw. mais bi mu génnee kaso yàgg na. yàgg na waaw. waaw mais affaire euh, injustice bi xam naa ni. Euh, injustice bi moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko métti métti na ko et puis ci koo ci ci ay waxama ah, ñun xamuñu xamuñu waa ji xamuñu ay frère am mais li mu wax nii ba mu nekkee bitim di liggéey ak baayam di liggéey moom ca la la mu doon liggéey ca la yore woon euh, ca la ca la yore woon ki li nga xam ne moom moo di ay frère xam nga soo dee taaw tukki loo liggéey dangay yónnee sa baay mu ci yor kër gi mm-hmm. bu yokk ca la mu yor di ci yor ay rakkam mm-hmm. rak ci ayoo xam rakkam yooyu tey ji ñoo màgg jam ko paaka ginnaaw ci ni ma ko waxee te lii may wax yi soo gisee ma ci insiste dafa bari ñu ne ci réew mii Sénégal kii di déglu lii may wax lii la ñuy dund li fi am la li fi am la de maanaam da ngay jël sa jeunesse sa liggéey sa lépp sa ñaq nga nga jàppale sa pàppa mu samp kër nga jàppale sa papa muy joxe dépense. nga dimbali say mbokk sa dimbali say mbokk. sa mbokk ya nga dun dimbali màgg taxaw jam la paaka ginnaaw looloo gën a garaaw corona Ndiaye. <laughs> dëgg la de jaay loolu gën a grave corona. dëgg la de corona yàgg na fi de. dëgg la de loolu dinañ ci ñëwaat. xam naa buñ la ko dul sax ay di la ko def yooyu dañ la koy wax ay wax yu ñaaw yoo xam ne teg wax ñëpp dimbali nga leen. waaye yow ñëw ñëw su doon su doon yow faatu maanaam naa di dund ci sàq mi saa sëyee xëy yaa ngi ñaan sàq mi doonuk daay. wallaay dëgg la dëgg la ko yor. dëgg la ah? de dañu war a xam ne daay yàllaa koy taal. fi am la de waaw ah, waaw loolu la de. fi am la de baan fan lañ jëm. Njaay te ngi dégg benn xale bi liir bu ñu sàcc hôpital waaw fële. Euh, hôpitalu Kër Massar. Mhm. voilà pour que bañ nit ñi bañ ñoo rey ki euh, envoyé message su élément bi jaw xale bi feeñ na. Mhm. ca yëmbal. Mhm. feeñ ñi te yëmbal. waaw loolu xam nañ ko feeñ ni ca yëmbal. waaye gendarmerie ñoo ko feeñ ñoo gis waaw gendarmerie ñoo ko ñoo ko gis fekk ko ca yëmbal ndaw sa jël nañ ko hôpital xool ko am waa kër docteur ne nañ ko yow amoo doom. ku am doom xale bi samedi lu judd samedi léegi ku ci am doom su la yóbbu hôpital nañ xam ne am nga doom. doom jëm yëmbal la feeñee waa na mu def ba sàcc ko déglul jëkkër ji. asalaamaaleykum yéen waa xalaas ñun daal dañ fa am fii ni benn cas garaw fii ci hôpital Kër Massar bi ay 5 heures ci ngoon daal sama soxna si moom moo yëngatu sama waajur bu jigéen woo ma ne ma sa soxna si yëngatu na maa ngi ko yóbbu ci hôpital ba fekk ma hôpital Kër bi ma ñëwee sama waajur bu jigéen sax moom jotul duggaat parce que yorul mask dugg ci biir bi ma duggee ci biir ma fekk fa sage-femme bi ma woo ko mu génn ñëw ne ma yaay jëkkëru mboose ma ne ko waaw mu ne ma mboose am na doom bu jigéen gën ma ne alhamdulilah rabbil alamin ne ma nga fay fii nii ma dem ci beneen côté bi ma fay foofu na moom li ma fay foofu noonu bi ma ñëwee ci sage-femme bi di ko wan kii bi euh, di ko wan euh, li ma jënd pour mu pour mu sama soxna si lekk ko ma ne ko yow yaa yow yaay sage bi peut-être yow ko joxee moom dina dina ko lekk ma taxaw noonu jàkkaarloog ndek maa ngi jàkkaarloog ndaw si nga xamante ni moo war a def affaire bi mi ngi jàkkaarloog man def face à ak man taxawee fële de loin maa ngi seen naa ko mu taxaw fële ma dugg ci biir ma ànd ak sage-femme bi mu jox sama soxna si affaire bi pour mu lekk ko. ma nekk ak moom ci biir fii nii nekk moom ci biir une heure quelque ma génn ñëw commencé di lekk foofu noonu. femme bi ñëw ba ci man xaw ma jege tuuti nekk ci ginnaaw ginnaaw mur bi foofu noonu. ne ma frère na nga def ma ne ko ça va mu ne ma ban heure nga yor ma ko deux heures moins neuf. bon mu taxaw mais demul muy mel ni comme kuy xaw a yëndu di xool salle bi sama soxna si tëdd. parce que sama soxna si salle bi mu tëdd moom la ak beneen femme bu accouché mais femme bi accouché am na beneen mère bu mu àndal bu tëdd ci beneen lal bi sama soxna si moo nekk ci lal bi nekk ci porte bi net femme bi après avancé dem jaar na le ci côté couloir bi foofu noonu femme bi maa ngi ko gis dafa dafa ñàng nag bët yaa ngi xonk cur mu dem dem ba mu yàgg jékki-jékki mu ñëwaat bi mu ñëwee mu xaw a taxaw ci sama côté noonu quoi man tamit sama yaram bi mel lu yëngatu li ma doon lekk mën na ko am mu ne ma baax na mën na ko am mu ne foofu noonu quoi sama yaram bi ñemewu ko parce que ni mu mel la moom dafa muuru tellement que bon du ma kii dafa ñàng quoi après mon ma toog foofu lu yàgg femme bi jékki-jékki rek disparaître quoi dem yàgg dugg ci beneen salle bi mu mu dugg foofu noonu foofu nag dugg dugg fa dugg fa lu yàgg man gisatuma ko mu ne ma kaay téye xale ma ne ko maa ngi ñëw léegi bi ma jógee ma dem ma ne ko xaaral ma raxasu ma dem raxasu may julli femme bi ñëw nekk sama ginnaaw côté boole fi may jullee ma jullee ba gis ko muy def ay gestes pour man bon femme bi dafay matu wala dara la ko affaire ma yërëm ko gaawantu jóg ci si jaar bi ma doon jullee jox ko ne ko am tëddal fii nii xam nga femme itam daal di tëdd foofu noonu moom yàgg jékki-jékki jógaat bi mu jógaatee nag gisaatuma ko yaa may dégg man nag après séenatuma ko gisatuma ko mu disparaître mu si laa téye bi ba bébé bi nelaw ma jox ko sama soxna si boobu 4 jot na nag instant woo noonu 4 jot na ma daal di jóg foofu noonu ci lal bi fi ma toogoon noonu ma dem ci beneen lal bi toog fa nag ma wéeru foofu noonu wéer fa sama bopp bi commencé na foofu noonu jàppanteeg nelaw jàppanteeg nelaw nag xam naa nag sama nelaw yi ba mu dëgëree dëgg nelaw yi dëgëree nag xam naa ci la ñëwee rek ndax sama soxna si daat koy yee nank laaj ko bébé bi fekk boobu sol na blouse bi nag ba pare bu weex bi après sol masque bi ñëw daat koy yee nànk ne ko jox ma jox ma xale bi ñu faj jumax bi ak ni mu ni mu solo noonu sama soxna si day yaakaar ne kii sage-femme la sama soxna si laxasaat bébé bi boobu man maa ngi ci ay nelaw yëgaguma ko sama soxna si mu expliqué rek mu jox ko léegi nag bi mu ko joxee la tànk muy génn man ci laa sama nelaw yi ci la daggee mu xaw a xool mais jóguma dama ko xool mu jël mu fekk mu ngi yor benn kol nii mu koloo kol mu jaar côté droite dem foofu noonu jaar côté boobu ma toog lu mat ay cinq minutes rek sama yaram bi mel dama ko yëg ma jóg ma ne sama soxna si yow ana xale bi yow mu ne kii laa ko jox euh, saas-femme bi nee na day xool jumbax mi day faj jumbax mi ma ne ko ban saas-femme man boobu maa ngi koy bàyyi xel mais dama nekkoon di nelaw sama nelaw yi moo nekkoon ci man nag ay cinq rek ci laa jóg rek jaar côté bi mu jaar côté droit rek dem di xool fekk ne buntu yooyu mu tijji taal lamp yi buntu yooyu foofu nag laa doon dugg saal bu nekk ma ubbi ko xool gisuma kenn saal bu nekk ma dugg fa xool gisuma kenn ndekete moom mi ngi jaaree ci côté morgue ba dajji foofu noonu dañoo dajj foofu noonu chaîne bi nii ñu fexe ba sàcc sama doom yi dem yóbbu ko si laa toogee tuuti mu xaw a leer ma dem gendarmerie may alerté nag képp koo leen gis amoon doom avorté yor doom sama doom la sàcc xale bi jigéen la fu mu demoon yàgg fa tuuti rek jékki-jékki ñëw àndaale doom jàppale ne sama doom la andi moomul doom ji démb la juddu mu sàcc ñu sàcc ko démb démb ci 5 heures la juddu 17 heures la juddu ñu sàcc ko 5 heures di matin moins 2 lañ ko sàcc fii ci hôpital Kër Massar bi ki ko sàcc blouse la sol mel ni def ku def comme sage-femme boo ko gisee. dégg nga Ndiaye. dégg naa bu baax a baax. bi waa ji demee gendarmerie daal xam naa ne ñu ko kii kiiyee waa wëree wër gisuñu. gars yi dañu def appel à témoin xam naa ni RFM gii jàll na fi su ko defee nit ñi xam nga ni ñuy joxe woote gendarmerie gis naa lii gis naa lii gis naa lii gars yi di ko vérifier fu ñu leen wax gis naa lii ñu dem vérifier ba vérifier gis bu yëmbal bi muy moom. wala ñu yegg yëmbal. waaw nañu dellu ci waaw ban càggante lañu mën a amee ba seetaan ba femme bi dugg fa. loolu dëgg la jël doomu jàmbur génne ko. dëgg la. te tey gis nga bu booy bi feeñul woon. Ah. kenn du tudd hôpital. te la logique pour logique. waaw bu fekkee femme ba fa la muccee. ñoom ah. ñoo xam ne fi la doom bi juddoo. Ah. bu doom bi réeree ñoo war a fay. seen ay responsabilité la kay. mais tey bu demee woon noonu doo leen dégg de. ah mais suñu leen déggul ñu dégg ñu ñun ñi rek. ah waa mais dafa am foo cay yem. sécurité yi ci bi gis nga buñ bu danañ topp corona ba ñun yàq suñu àdduna. ah corona dëgg la de moom mi ngi yàq jamono. waaw mais warta yóbbu xel yi ba jigéen di wasin ci hôpital Euh, du ñu ko tal ba nit ñëw. waaw euh, gàddu waxtu yi daa jot. jot na de bàyyi bu suba ak